Kamaale hoo kenn du moom moo moom nguur waaw mooy borom nguur di borom mooy buur itam bu yowmal xiyaamee dina bàkk juróom-ñaari junni at ne kan moo buur yaakaar naa bu keroogee kenn du yëngut waaye comme mu doon waaw ñoo ngi fi jaaran bi ñaari xale ñu ngi leew too waaw ñu aj lool <laughs> yal na yéex amiin yaa ragal yal naan nag yërmande yàlla ku ko ñeme da ngay xa da ngay fontu da ngaa ragal ku dee door trompoor du yàgg de bul waxati loolu ah, bilaay mënta yàgg combat bi del xool rek bu ñu jàppantee léegi jëlaam de jeexalu ko ñaari ndaanaan ay bëre bi laay jeexagul ma ne ah baax na baax na xale bii baax na na ko làmb bàyyi xel xoole ma mbooloo ma te day mobiliser. lii mooy logique lii mooy logique CFA Babacar Balde CFA Babacar Balde Babacar a ngi dox si kawam rek di dóor. sa contrôle Sèvres day bëri si Babacar Sèvres jàppaat na lu mu am na ko Babacar ak hyperkill ba Sèvres at Babacar dóor ma dóor Sèvres soogu na ko Sèvres Babacar fàq na waaye Sèvres teewul eh, Sèvres jàpp na bëreel bëreel xool bëreel ñu xool lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu ñi rek mais duñu xam làmb muy lu waral loolu parce que booy CFA mi Babacar Bal di daan ah. biir bi mu ngi métti bu mu ngi fee tëdd ñu tëral ko dëgg la dañ ko war a jël tëj ko si cummukaayam mu toog mu toog dëj ko ñaari yoon ñett ñu tekki galaaj yëpp wala yaa ngi koy gis ne a tekki lépp fa lañ jëm dëgg si mag mbër mu mag la Mamady Ndiaye mbër mu mag la moo ko jëlee indi ko si cubukaay bi war a def tekki lépp Mamady mbër mag la yëlëb ko moo lambu day tegtal la ñun ñun lambu tegtal la arbitre si la waat na kalandoo eh mais kalandoo lu dal eh bato Sénégal kalandoo moo tax eh eh am na jël am na jël am na jël na jël am na jël am na bato Sénégal. arbitre sifflé bu sawa Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye Obali ma ñu woon ginnaaw borom ngeen bul xonq li ngir ma nu jàkkaarloo ma takk musul ba ca bopp ngeer eh ngeer jébalu si na ngeer laa ilaha illallah waa <laughs> xoolal ma ko xoolal ma ko xoolal ma ko kii mooy Obali hey kii mooy Obali kii mooy Obali. Obali na ko Obali Obali na Cheikh Tidiane Niang Albouri ningi nanga fata wala nga ne Kor Fatou wala moom simang ko koy Alpha Niodior ningi nanga fata at Albouri bu kay baax ndeysaan jolof jolof bi ndeysaan Kor Fatou lañ noonu ningi nanga fata ndeysaan Albouri moo ñu woon gannaaw Kor Fatou Cheikh Tidiane Niang lañ ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Cheikh Tidiane Niang Albouri kii bàyyee ko parcelle. takusaan bu ne am na fi ndeysaan. kii bàyyee ko Tëngéej. yoru na daan na ko Albouri daan na Cheikh Tidiane Niang Albouri daan na Cheikh Tidiane Niang. sëfle waat na ñoom ñaar defaat nañ la même chose bëgg nañu saako yi de te xanaa suukar daa nekk ci saako yi. est-ce que nekk ñu ay jàngal saako. moo ma ja est-ce que nekk ñu ay jàngal saako. mën naa nekk tamit wala ma jaaxal. Irrigation Irrigation attention Dress ak Rôlis waaw waaw attention eh eh ay laa fi la Gros Serras door na fii ci arène nationale ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo di foxantey baaram di bàyyi wante candum dem bi ngi jiital tànku caatu kawre jiital tànku ndeyjoor fausse garde la garde normale ndeysaan war nañoo mën a xeex war nañoo mën a bëre gis nga ca gis nga caatu kayre cokkaas na caatu kayre ak candum de attention caatu kayre mbii ma ne léegi attention door na ko daanu Serigne Gueye ko mu daanu laa ilaaha illallah hey hey ana Malick Thiandoum Thiandoum Gueye door na ko mu daanu. Kirikou moo ñu woon gannaaw Boy Sila moo jàkkaarloog ñun ñu ngay lewaatoo jëm ca saaku ya ñoo bëgg a bëral làng bëral leen ci digg géew bi attention Kirikou door na Boy Sila fayu ñoom ñaar tegante nañu bopp ndenge ñante foo xantey baaram ca suuf attention Boy Sila door na ca suuf Kirikou bañ ña ngay xëccoo ña ngay njëkkante ngemb attention gis nga Kirikou jàpp na Boy Sila attention Kirikou nga koy jéem a bët Boy Sila def na rekil laa ilaaha illallaah ey waaw waaw Kirikou sukkar bi na ko daan na ko Kirikou est petit. laissez mon ami. Kirikou est petit. laissez daan doonatul petit léegi daa mel ni waa léegi damay daa mel ni grand la de. Bébé Garga am na ñaari loxom ci ngemb ba pare ndengeñ mais bul fàtte ne Bib Diop tamit jàpp na Bib tamit jàpp na mais est-ce que Garga mbër muy bëtt la. mais xoolal saa bu jàpp dafa war a ndaama loxo bi sant. avantage sam mooy ba jeex na avantage sam mooy def demi flexion bët. ok est-ce que duñu jox victoire. Bib Diop victoire bi kan lañ koy jox temps bi jeex na oh Bib Diop daan na ah, gar Bébé Garga Cheikh Bari Kana Bass attention wante Kana Bass laaw na mais dalul Cheikh Bari ñu won gannaaw mooy njool mi attention la ilaha illallah eh Kana koy dóor Kana Bass a ngi ko Kana Bass a ngi koy dóor attention dóor mu daanu Cheikh Bari a fayu ñoom ñaar ñu ngi xeex benn benn xeexu mbedd ey laa ilaaha illallah ey ey Cheikh Barre door na ko mu daanu Cheikh Barre door na Kana Bass mu daanu attention lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax Cheikh Barre door na Kana Bass mu daanu daa ngi dox kawam waaye Sandrep arrière na daa bu Texas à Sandrep daa arrière na da kaa gëdd daa arrière waaw léegi ñu xool daa fayu waaw waaw ba kaaw du am benn bennal mooy tàcc tàcc xeex bu sew koo koy tàcc tàcc dóoral ma dóor oho konkorong koo koy tàcc tàcc daa dóor na ndeysaan fii condition moo fi feeñ nag jeexaat na jeexaat na jeexaat na. parce que bàyyil ba ñu joxe résultat bi. marsinil lu raar nil nañu. sama xel ñaaw na. sama xel ñaaw na. mooy sama xel ñaaw na. <laughs> ayca ñu dellu ca combat ba. hey waay may waaw sama xel ñaaw na. sama xel a njëkk a ñaaw. li wax maak yow kese ko xam. oh xanaa ma xool ak kan. xanaa ma non non fii man ak yow. waaw ah, fii man ak yow kese ko xam. attention aussi yaa ngi dox kawam nga joonu door na ko gauche droite doorante ren daje laa ilaaha illallah jàppante nañu ngal jonn océan ey door mu wàcc toog na wala toogul yaay daanu na Océan door na ko mu daanu Océan door na ko mu daanu oho Océan door na ngel jonn mu daanu mu koy bii mu ngi koy bii gaynde waalo ngi jéem a dugal loxo càmm càmm day boole tànk yi day boole ñaari tànk yi mais loolu wóorul wóorul la paquetee rek doo doy ñoom ñaar ñu ngi jàppantey loxo si suuf ku ne sëq ah a ngay si suuf. Saaka Joor a ngay door ngay dugal épérkil. ba na ko mu rëpp. door na ko mu wàcc. ko mu rëpp. kaawote na dafa xew. waaw yow door mu daanu moom weekend bi moom ah. démb 3 am. Oh! fu gën a waalo jëm muy. c'est que soxor bi tànku ci kawam. sànqaay leen ñëwaat leen soxor am nga avertissement ma bëreel soxor am nga avertissement bëreel bal tarde tarde baaxul mooy Babacar bal tarde ba tudde ko da koy aras wala toog na wéeru ko déedéet mais soxor ndaanaan lu xew lu xew lu xew ñu xool lu xew ñu xool mu xool Yankaw daan ko Yankaw daan ko Yankaw moo ñu woon gannaaw Tapha Leer numéro 2 la ñu jàkkaar lool Goro dox na ci kawam Tapha Leer cokkaas laa ilaaha illallah xoolal écartement Tapha Leer bi Tapha Leer rokos na kor na ñoom ñaar daw na njëkkante ngemb laa ilaaha illallah Tapha Leer rof na ko ca caxabal Tapha Leer daan na Goro dafa leer daan na mbaru reporter yi dafa leer daan na mbaru reporter yi hey dafa leer daan na suñu mbar mi ay dafa leer daan na suñu mbar mi waay mbaru reporter yi a ah, Idi doo wax dañoo daan sa mbar moo tax mënoo wax hey Idi dañoo daan mbaram. ndeysaan attention song amagul door amagul hey attention. weccoon nañuy kuul léegi mais benn dalu ci ndeysaan sa boqal attention ak X9 journée gooy salaam eh attention sa boqal dóor X9 remis waaw waaw hey sa saa boqal daanu na ndeysaan daan nañu saa boqal ndeysaan X9 daan na ko. amul protection lamb lamb du ko lamb du ko dépassé. Zarko mbër xam ne amul fu ko lamb di dépassé ndax wàcc na kii bu ne bëre adversaire bu ne. nga ndeysaan jege woon toon songale mu songale mu bañ. dafa diis dafa diis wax naa la ko mbay wax naa la ko dafa diis dafa diis. Zarko jàpp na. Zarko Zarko jàpp na. Assane. ñoom ñaar eh la sa gis lii. Zarko daan na la. Zarko door na ko Zarko daan na la. laa Zarko daan na Diène ndaanaan la de ko bàyyi xel du cuune ndaanaan la nañ ko bàyyi xel. Zarko daan na Diène Kaïré oh Diène jommi na. ñu ngi ba Tafa Gueye numéro 2 def. waa gis nga loolu mooy bëre démb. xoolal Laurent Ndiago na mu wàccee. na mu wàccee mu koy sàcc. di xeex ak moom benn loxo. Laurent Ndiago. Moustapha Gueye numéro 2 a borom Espagne attention. ndeysaan dajal nañ jokkas na. dajal nañ ñoom ñaar dajal nañ ñoom ñaar rukum. rëpp na xeex nañ xeex nañ ñoom ñaar. dafa day xeex. Tapha Gueye Laurent Ndiago Laurent Ndiago da ngay xeex ñoom ñaar. daan na ko daan na ko. daan na ko. lan moo xaw daan na ko. Laurent Ndiago jàpp na daan na ko. loxo daan na jëriñ loxo loxo dem na gémmiñ. loxo dar na gémmiñ. dina jàpp na gémmiñ ga. oh dina jàpp gémmiñam. lan moo xew. dem baaru lan dem baar ñëwaat. daanu na daanu na daanu na daanu na. rëg-rëg cokkaas na léegi mais demut mais gis nga rëg-rëg léegi. mi ngi mel ni gën naa jege Bombardier ñaari tànk yi gën na noo jege wantoo ñoom ñaar gis nga ñoom ñaar seen ñaari tànk yi. gën nañoo gën nañoo jege wantoo ndeysaan cey al amin ndeysaan su ma ko nee how are you lu may wax fine mu ne ma cey lamb cey onjom foppe lelum cey onjom foppe lelum cey onjom foppe daw Reug Reug daw na jël Reug Reug daw na jël jàpp na ca gannaaw Reug Reug jàpp na bombardier jàpp na ñoom ñaar jàppante nañu lan mooy xew Bombardier jàpp na Reug Reug jàpp attention attention Bombardier Reug Reug kal na Reug Reug kal na lay laaxe lala Reug Reug daan na Bombardier door na ko tànk Reug Reug door na tànk ko ba toog ci kawam daan na ko ba toog ci kawam door na ko tànk moom la fi gëj. Bébé waaye Boy Baol waaye la daan dafa jóge si Gakou 2 dem si Baama Ndione. ama neex suma juumul. Boy Baol la Boy Baol la mu jëbal Baol Boy Baol un mu njëkk. waaw waaw Boy Baol waaw. jour combat Tapha Tine. waaw Yékini Junior. ñoo ngi xeex attaché. waxoon naa la ko waxoon naa laa ilaaha illallaah waxoon naa la waaw mais Idi loxo dem na gémmiñ. loxo dem na gémmiñ yóbbaalewul jëbu ceeb. loxo dem na gémmiñ ama neex ama neex. champion la moom Malick. waat na. saan grand Mbagnick. aywa eh, su nekk na xeex ba door mu daan doom jàppante nañ. Eh, grand am na la mu bëggoon. grand dafa mel am na la mu bëggoon. Grand jàpp la bëgg su la Grand jàpp tamit Grand benn loxo baa ngi sa triceps ba Grand Mbagnick Grand Mbagnick ak Soundiata am na ngemb Grand am na ngemb eh takk ko takk ko takk ko laa ilaa Soundiata daan na Grand Mbagnick waaw waaw Soundiata il Fouta Tall daanaan ana Mbaye Gueye Faye gisuma Mbaye Gueye Faye waaye xol ba sedd na oxo Fouta Tall daan na Grand waaw waaw mbokk yi ñu jàll ci combat boobu di dox ci diggante Alias Baldé ak wulli wulli waat mbokk yi ndeysaan borom ñam ñamaat ndeysaan arbitre sëf na génn seen diggante ñoom ñaar wulli wulli waat ak Alliance Baldé ñoom ñaar ña ngay lewaatoo demee wet ndeysaan aliya attention wulli yooru na wulle ngay door wulle ngay door plaqué na Alliance bañ lay laaxe la laa plaqué waat na Alliance bañ mboot lay laaxe la laa eh, lan mooy xew oho eh eh kan moo daan ñoom ñaar kan moo daan ñoom ñaar kan moo daan wulli daan na Alliance wulli wulli waat daan na ko cay wulli wullee ngi noonu ndeysaan mbokk yi wullee ngi noonu bu très bonne question jaman e eh. tas yaakaar ba ndëñee li neexul ba neexul waaye ñaari xale ay bërekat ay mbëru mbabat lañ ñoom ay mbëru mbabat lañ tas yaakaar ba saan tas yaakaar at ba dëñë tas yaakaar ba dëñë ndeysaan kat na ko bañ tas yaakaar na ko da kaa caxabal na Orné nga koy diriger Orné nga dox si kawam nag Orné nga dox si kawam ah eh, Orné nga dox si kawam Orné Orné nga bëgg a jeexal Orné nga bëgg a jeexal ah amee Orné bi lu def nii lan la temps bi jeex na Modou Faye yàlla sinik ay eh, Modou am na victoire yàlla sinik eh, cinq disqualifié joxal ordre victoire waaw waaw waaw waaw eh. ay ndeysaan ñoom ñaar ñëpp fi lañ mujjee daan booy jaxaw ñoom ñaar ñëpp fi lañ mujjee daan booy jaxaw bisaan dafa daan booy jaxaw la Yaxin Mbambi dafa daan booy jaxaw ndeysaan jàppante nañ ñoom ñaar Yaxin ngay dóor ndeysaan Yaxin ngay dóor Yaxin lan la ko mbot bu sunux ko yokku na ko ñu xool lu xew lu ñu ngay raam te yaxe nga door yaxe laal na ko bañ Misaan laal waat na ko mais xale yaa ngi bëre waay oh quel combat waaye xale yaa ngi bëre waay ndeysaan eh ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xool lu xew var var var var var na var mais ragal naa mu ciblé waat ah sinik lañ jóge aloog lañ jóge aloog xool ñu waaw waaw waaw waaw waaw mbisaan ko mbisaan daan na ko mbisaan daan na ko Saan Doki at Gibson Saan Doki at Gibson ñaari xale yaa ngi noonu Seydina dafa mel ni Doki moo ñu woon ginnaaw Doki waaw Doki moo ngi bëgg lu blanc am lu rouge am lu rouge moo Doki jël na ko Gibson jël na ko Gibson jël na ko eto na ko bañ takk na ko laali na ko daan na ko Jibson daan na Doki Jibson daan na Doki Jibson daan na Doki Sokh remise na jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñaar Sokh Sokh ak ñu xool ñu ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew daa surux ndax noonu ci géew gi su faar bi waxee ne nañ bëriwaat coq bi gëm mënu bëriwaat waaw yaakaaruma ko ndax noonu ndeysaan ñu xool faar lu wax Jackson daan na Jackson daan na ko. daan na ko daan na daan na ko. Jackson daan na ko daan na ko. Bébé Saloum moo ñu woon kanam. Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye eh Bébé Saloum tam na ko. Bébé Saloum Serigne bañ. faax na ko bañ day jóg Bébé Saloum Serigne Ndiaye. eh eh ñu xool ñu xool ñu xool xew ñu xool xew. ah ñu xool. VAR ñu xool. Dia daan na ko Dia daan Paul Dodj dóoral ma dóor ey waay dóoral ma dóor ndeysaan rajante nañ dóoral ma dóor ndeysaan combat bi métti na waay combat bi métti na trop ndeysaan saan teji teji raji raji lépp am na si ndeysaan léegi nañu xool bëre bi ndeysaan

Oho! Karbala Fone! Karbala ah, ko, paate kor na ko, eh, jël nañ ko. Jël nañ paate. Saa bi tibb na suuf. Waay waay. Waaw waaw. Ndeysaan mais Pathé dafa kottu. mboq mboq mboq la. mboq la xool aywa xool jàkkaarloo ba. jàkkaarloo xool jàkkaarloo ba. Eh, jël na ko jël na ko jël na tànk ba. jël ah, na ko laa ilaaha illallaah. 4-1. 4-1. waaw 4-1 fi ñu toll dolli Boy Ndongo am nga carte avertissement Boy Ndongo am nga carte avertissement ak Tigili Boy Ndongo ak Tigili Boy Ndongo ak Tigili Tigili daan na ko Tigili daan na ko Tigili daan na ko Tigili daan na ko daan na ko amee menace bu baax su defee ruuxu jàpp. waaw da ngaa gàdd. da ngaa gàdd. public bi tàcc nañ ndeysaan. ndeysaan ñàkk jëriñu an ngaa la déranger. ñàkk jëriñu an ngaa la déranger ñasaan ngaala kott na ko ñax bañ ñax jëriñ an ngaala dérangé ay waay séeri laa liyo na koy bëre waay taxawal bañ ah ah arbi sif la na ñasaan albarka Aliou Fat albarka Aliou Fat Fat albarka Aliou Fat Fat albarka moo ko daw wiite mbot mu génn saaku yi Aliou Fat Fat albarka Kayre troisième combat de la soirée Aliou Aliou takkaat na ko jël na ko albarka Aliou Fat Fat takk na ko dégg nga bañ laa ilaa Aliou Fat Fat daan naan war nga gagné ma daan na ay waay yaay Fat Tik Tik Aliou a ngi noonu saan ba saan danañ koy yóodu Karbala bañ na Karbala Lassana ràcc na bëgg Lassana dafa ràcc ndeysaan Karbala taf na ko bañ Lassana rëpp na Assane la Sandel Karbala mais combat xale combat xale day neex waay ah combat bi neex na trop waay jël na tànk ba mu bañaat daxaat na ko palaax mu bañ la Sandel a ngi dóor ñu déglu arbitre lu mu wax ñu déglu arbitre lu mu wax ñu déglu arbitre lu mu wax ñu déglu arbitre lu mu wax Karbala daan na ko Karbala na Lastander ndeysaan Mbagnick Kaïré temps bi jeex yëkkati loxo waay waay ko doo da nga mel ni mooy bëre lu jaaxal ne ma man ay point la li jëndi Senghor doon Senghor Ismaïla day fekk 3 rek deuxième mi-temps ma yëpp bii ndeysaan temps bi jeex na temps bi jeex na doon na ko temps bi jeex na waaw diggante Baye lan la. ah. de. xam naa ne nendu na leen de. wala dafa xam seen sarax la. ah jaaxal na. Baye san Kaw Gourdin Bulldozer Bulldozer moo ñu woon ginnaaw ba Kaw Gourdin na jàkkaar lool ndeysaan san ñanga ñanga ñanga Bulldozer jam na Kaw remis ko laaw dooral ma door bu saxee neex yor na fax kana bi am na kana am na Bulldozer daan na ko garab bi laa ilaaha doomu Malika doomu quartier Aliou Diallo bi vaar vaar waaw vaar ñu xool lu xew yaa am na waaw waaw Bulldozer daan na doomu Malika bi daan doomu quartier Aliou Diallo bi ay aatu kañ lay feeñ ma juddoo ba maa ngi dégg A Touré Baye Ndiaga ak Farba Diarra Baye Ndiaga ak Farba Diarra Baye Ndiaga ak Farba Diarra Baye Ndiaga ak Farba Diarra jeex na jeex na da koo dóor na kaawu na kaawu na maa la ko wax Baye Ndiaga Farba Diarra daan na la kaaw laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah far bu jar door la Baye mu daanu ay Baye Peul Baye Peul suralel ko mu daan doom Hypercule ba door mu daan doom ñoxor dooraat na ko Alliance Diène ñoxor ak door ko dooraat Baye Peul fayu na ñoxor di leen ali eh la ko ba doom daan doom jàppante na ñoom ñaar fàq na ko ñoxor alias jën fàq mu bañ Baye Bara jógaat na Baye Bara ngay langaan ma langaan comme njoowaan Baye Bara ngay langaan comme njoowaan ñoxor dàq na ko plaqué ñoxor ñoxor alias jën daan na Baye Bara kër booy kaare soqeeku nañ kër booy kaare soqeeku nañ oh booy kaare soqeeku nañ ñoxor alias jën ikri sumbu jun laaj na Rambo laaj na Diaw 2 arbitre sifflé na Diaw 2 ak Rambo kii bàyyee ko war fajir wala nga ne asek na Rambo gi dox si kaw Rambo nag moo def rasta yi moo def comme Bouna Marassa xam naa reporter yu bees yi xamuñu Bouna Marassa ndeysaan moo def comme Bouna Marassa. def combat 9 victoire Rambo. waaw loolu. takk na ko eh, Diawda takk na ko taxabal na ko taxabal na eh, xool ñu xool xool lu xaw daan na ko daan na ko Diawda daan na ko waxoon naa mi ngi soog a marqué defee tam première defee boo xoolee combat yi des bariwul. saan waaye waa yëmbal ñu ah, de. dañoo décidé. tey 31 décembre. fête Sane Boy Diop. ñaari xale yi ak Mama Lamine. Armé la ak Mama Lamine. woo ma. ndeysaan. ak Mama Lamine. Armé dóor a dóor Mama Lamine fay. dóor dóor dóor dóor daan doom. ba dóor daan doom. Mama ay la la la. waaye di lii lan bi daa muy arrière muy arrière muy daw di ñëw remplacé ko mbot mu tëggu ko mbot moom la ko mbot du mbotoon Boy waaw la Diop Ardo moo wan ginnaaw waaw yi la baaba lañ jàkkaar lool ndeysaan ki waree parcelle ki waree jàmm ki waree jàmm gën mu ngi koy dugg ci garde bi léegi génn tuuse mais Ardo bëre ba bari Ardo ngi tax Ardo ngi dem hey góor na góor ma dóor Ardo Ardo jël Ardo Ardo Ardo Ardo Ardo ndax kuy ngay yi la yi la bul topp xeex bi wóorul ndeysaan Ardo yi Ardo at Ardo yi Ardo la at dàq na ko plaqué. Ah! arda na ko. arda yi la daan na. yi la daan na. arda na ko. waaw waaw. dem na kàddaa bi. anti la Diop. Siteu bu anti moo ñu wan ginnaaw yi di. ñenn ñoom ñoo ñëw ci victoire lañ fi jëlee. Agogo lañ jàkkaarloo moo xes. Agogo yow. Agogo trompeur la fi daan. ndeysaan daanaan la daan. waaw Siteu bu anti sos bu jàmm la fi daan. la fi daan ndeysaan teg la ñaar bi waa daan moo booy Diop mujj na koo daan moom. waaw. hey eh, bët na ko. Siré Bane lan lay def mag la de kenn waxar. laa ilaaha illallah. Siré Bane andi bu teeyul. Siré Bane andi ay Siré Bane dëgg ngay bëreel naan. kii ngay bëreel moo bëreel Siré Bane Malika daan ko. moom ak góor. ak góor yéen a bañ. laa ilaaha illallah. doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat lan esaan la ko mooy toogal. soxna seen ñoom ñaar ñakas de. mais ñakas mi mais Hercule xeex la indi tey. ñakas mi Hercule bëggut a jàppante ak moom de. xalaatu ko. jël na coup jël daa war a taxaw. non eh. ñakas naa bu la dóor ñakas pare. doon daal la tey jékkul. waaw booy yëngu lu seen yoon. waa kat Diop Diop lu seen yoon. waa lu seen lu seen waa Hercule mi. waa kat Diop Diop lu seen waa Hercule mi la. daa mere woon. daa soxla woon dafa mere woon. waaye di kilmi waxoon na ma ko dama ko duma mu tëdd ay waay maa daan petit baba arbitre soufflé na arbitre soufflé na ak caatu ngeen maa daan armée ndeysaan maa daan Cité bu anti oho ñooñu ay waaye ñoom ñaa ku ne da ngaa daan far eh, cokaas na demul wala wala non poussière la eh, hey hey eh. Diop na ci gaar bi yow war na ko. booy Diop jaadu ngewal ah! booy Diop jaadu ngewal. booy Diop jaadu ngewal. booy Diop jaadu ngewal. laa ilaaha illallaah.